voilà salaamaaleykum mbokku ami internet comme niñ lañ koy deflee ne du teew ñuy nataal ki nga xamante ni moom la Dof Ndeye def jëf ji moom la ñu jàkkaarloon ni yombul woon ñu ñu am ko mais waa kër gi jàppandal na ñu lépp ba ñu mën ko am ñu ngi lay nuyu ko maa ngi fi man maa ngi tudd Maodo dëkk xar yàlla ci jàmm maa si jàmm bu baax kay mais tey boo doon ñëwaatal ci li nga xamante ni moom la la sa waay def loolu ñu ciy wax lu mu demee woon ah, histoire bi da doon histoire ak sama benn xarit bu may toogal léegi muy histoire ak moom léegi ba yaayu booy bi yaayu booy bi nekk foofu di kii di wax ak booy bi jël xeer nar ko dóor booy bi léegi ma ñëw tee yaayu booy bi wax si la moom fekk mu ngi toog noonu si ginnaaw booy bi léegi si la fekk si la yor paaka bi léegi si la yor paaka nar a kii booy bi après booy bi si la ko kii nii si lañ si la daanu si la ñoom ñaan ñu daanu après si la jam booy bi léegi ñu kii ñu ñu tourné booy tàmbali leen sànni ko ay xeer ba mu ba mu dem léegi nag ñu kii mu bàyyi ba ay ay deux yooyu mu ñëw sam suñ kër fëgg après si la sam papa ibi ñu tàmbale naan man ci laa bokk tàmbale di saaga sam papa saaga ko saaga yu métti léegi ñu xëy suba ay ay huit yooyu si la si la ñëw suñ kër si la ñëw fii këŋ-këŋ fëgg ñu ibbilaat ko fekk ma may nelaw léegi ba may nelaw ma jug génn bu tàmbale di saagat ñëw taxaw fii di wax lu mu wax ma ne waaw mu wax ma ne waaw ndax xam naa ne bokk ma si mag dama ñëwante atte rek lu mu wax ma ne waaw mu saaga saaga ba sonn ma ne ko waaw rek waaw léegi si la wax bay waaj a dem ba muy waaj a dem si la génnee paaka bi ma tourné rek après si la jëm paaka bi jàmm ko ma dugg si néeg bi génn rek deret fekk dafa bë lu doon génn dafa bëri ko waa léegi après ma génn si mbedd bi gars yi si lañ kii ut benn oto si laa yeg si oto bi ñu yóbbu ma kii si lañ ma yóbbee hôpital mais Dof Ndeye fii lay am concert lu mu am Dof Ndeye man dama daan bàyyi sax sama liggéey dem si moom ndax la Dof Ndeye dama ko jaral tey dégg naa sàng laa doon seetaan benn kii nii benn vidéo mu naan waa Ousmane Sonko moo ñu yónni waa Sonko yónni ñu mag booy bi fii lañ dëkk xaar moom Dof Ndeye moom moo ñu ñaari kër yi benn fii rek la dëkk mu ñëw tey mu naan waa Ousmane Sonko moo ñu yónni mag booy bi mu ñëw naan ay dama laaj sarko ndax Zarko sama mag la fii kër gi fii la suñu maam yi ñoo bokk maag Zarko mm-hmm. mu ñëw naan dem waa Ousmane Sonko moo yoon ñoo yónni booy ñaari booy ma ñëw xoola booy bi nu ma ko def yàq naa kanam bi mm-hmm. dem fee fii rek la dem si ginnaaw fii naan booy bi yàq naa kanam bi mm-hmm. këram laa wax fekk saaga papaam saaga yaayam jamate ko dem génn ba ma jamee dafa génn dem nag dem dem sama ginnaaw kër maam naan xool dem leen kër gi rey naa fa nit loolu waxu nit loolu du waxu nit moo warul ñëw fii di jam ñëw fii lu mu am ma dem moom mu ñëw tey di ma fay lii di jël ay paax di ma ko jam fu ma génn gars yi naan ma bandi nga foo ma ji di ma di ma dëkkaloo foo xam ne dëkkoo fi loolu du yoon Dof Nday warul def loolu mu ñëw tey di foogoo moom bandi la di di génn ci mbedd bi saaga nit ñi loolu waru ko def magum jëm du def loolu moom dafa war a xam ne fi ñu toll nii moom dafa war a lijjanti leneen mais ay laay fu bandi yi amul solo moom loolu nag la bëgg dund ay laay fu bandi moom dafa war a xool fu muy amee xaalis mais warul nekk fii di xool ay man bandi laa di jam nit moom bu ko defoon moroomam sax garaawul fii la policier yi ñëw fii ñun ñoo ko may fit ñëw taxaw xeex ak ñoom tëbal policier yi ñu dem ndax la ñun moom daf ñu ko jaral tëgg concert lu mu tëgg ñu du mu kii kii ñu bàyyi suñu liggéey ñëw tey doom day ñëw di ma faye lii su ma génnee gaay naan ma bandi nga bandi ndax mooy faye jëf ju bon ji naan ma ay samay xeex ak sama kii nga siy dugg ma ko man dugguma si dama doon àtte rek. dama doon àtte rek loolu rek laa ko wax mu ñëw di jël ay paaxa di ma ko génnee di ma jam. Ah, kon dafa yaakaar ni da nga doon sotal sa waa ji. Ah, ah, dafa yaakaar dama doon sot. te man sotuma dama doon àtte su ma ko àtte woon moom day moom mun na jam booy feneen mu dee. mun na ko jam feneen mu dee. ndax ñëw nañu àtte suñu àtte woon lii mun na mujj feneen ndax jam na booy bi jam ko ay jam si kii si ginnaaw mais su ma àtte woon mun na demee neneen mun na jam feneen mu kii. waaw léegi mu ñëw tey di ko rëccu di ma woo saaga démb doon na ma woo faale wu ma ko ndax lan lu ma def damaa metti ñoo di saaga sama papa di saaga sama yaay loolu du yëfu nit du yëfu ci ci ci ci loo xamante ni matul 24 heures wala boog 48 heures mu nga xamante ni xarit la ci bi nga ko doon àtte ci ci lendemain bi wala boog ci guddi gi moom mu ñëw tam def la jëf ji waaw si gi si la ñëw saaga sama papa saaga ko saaga yu métti sama papa ne waaw na exemple mu ngi yor arme nit bu yoree arme bu nga koy sóoraale dëgg la mais mu saaga ko saaga yi métti dem na suba su ma ñëwee dinaa jam Maodo force ñu xëy suba ay moom moom sax moom sax lu muy def ñemew ko di dëgg looy dooy def da nga koy ñeme ñëw fa ay 8 heure boo xam ne ñëpp a ngi nelaw ñu fekk ma yi yee bu fekkoon fekkoon fekkoon ay ay bu baan ay yenn heures yi nii fii ba soo moom mënalu ma dara billaahi mais ay 8 la ma fekk may nelaw mu yee ma heure boobu man kii wow ma woon sax ndax fat sama xel génnoon na sax si affaire yi mu ñëw yee ma ba ma yee si laa jug sam sax moo ma yee yuuxu ma mu ne ma wuyul mu toog ci bunt bi saaga nday am na ñeneen ay garant fii mais ñooñu dañ ko ñemewul kenn ñemewu ko si léegi moom bu gisee booy ndaw yi di ko kii day naan kon boo man ñi yab grand yi man yabuñu ma booy ndaw yi bëgg ma yab loolu mënul ne du ma seetaan léegi si la ñëw génnee arme bi man gisuma ko sax si la ma jam arme bi may wax mu mu génn toog ci mbedd bi dem wër naan rey naa nit rey naa nit si laa génn dem jël kii dem non parce que yaakaaroon na ni waaw rey na nit ndax affaire yi dafa garaaw. waaw ndax deret bi nu mu doon génnee. ak deret dafa jam dafa jam jamaat rek deret bi sànni. moom sànni si la rey naa nit. rey naa nit mu génn naan rey naa nit rey naa nit. ma ne ko yow munoo ma rey. yow doo bandi ndax bandi dëgg du jam nit ba pare di daw. loolu laa ko wax loolu instant moom moom moo koy siisuloo. doo bandi loolu laa koy wax muy mer. doo bandi démb woo ma faalewu ma ko. ndax lan lu ma def moo ma jël ay paax ñëw fekk ma ba suñu kër dama ma jam. Ah, waaw parce que jamono yi si ginnaaw ñu ngi gis benn vidéo am muy wax naan na na jeunes yi bàyyi yoonu bànn yi na jeunes yi nekk seen liggéey na jeunes yi nekk ci li nga xamante ni mooy yoon bi bi tey ñu gis ko mu def jëf ji kon vidéo boobu xamante ne waxoon na ko kàddoom yooyu ak jëfi tey bi yow tey nan nga mën a interpréter jëf ji nga xamante ne def na ko ak li nga xamante ne moom moom lay woote. waaw di wax jeunes yi dem leen liggéey. Hmm. léegi moom jeunes yi bu gisee ñu gisee vidéo bi ñu mu ñëw si kër jaamu jam nit kon ñoon nu ñuy def day naan kon kii lu muy wax ak lu muy def bokkul te loolu la sax lu muy wax ak lu muy def bokkul ñëw fekk nit si këram jam ko loolu du yoon te police boo ko yóbbu police grand boo ko yoobee dégg naa commissaire bi ñemew ko commissaire Mbaalo dégg naa ñemew ko da ragal loolu moo tax léegi boo ko yoobee foofu nga kii ko nga porté ko plainte gars yi day naan du day naan waaw day naan dof la te dof dof nan lañ mën a fekkee nit si këram jam ko loolu gars yi dañ si war a wax mu ñëw fekk nit si këram jam ko ini ma problème instant bi may jël sama xaalis di si def di def xaalis bu bari di dem faju ji loolu yoon tam warul def lii mais après lii nga xamante ni am na moom rëccu na ko wala boog nu mu ko def moom rëccu na ko rëccu na na fii ay magi mag pour ñu ñëw pour baalu muy jégalu mais man dama dem ba nga xamante ni instant bi nee naa man mun naa la baal de mais damay xam man su ma la rombee du ma wax ak yow dama bàyyi wax ak yow àdduna àlaaxira su ma la gisee man pare naa si yow mais mun naa la jégal tamit mu naa la jégal mais yegul sama xol quoi ndax lu ma def dafa ma métti ñëw ba suñ kër di ma jàmm loolu laa ko wax loolu dafa ma ñëw suñ kër jàmm génn naan ma rey naa nit kii dafa ndaw pour pour pour jàmm ma dee billaahi moo mu doon ay kàddu yu daw yaram yoo xamante ni gis ngeen ni mu ko waxee waaw bu fekkee am na leneen loo bëgg jàllale lu la luñ la laajul balaa ñëw yëkkati jotaay bi nga jàllale ko. ah waaw man kay loolu rek laa doon wax kay. Hmm. waaw kon encore une fois dañ lay ñaanal yàlla may la wér. waaw lii yàlla bu mu fi amati. parce que comme ni ñu ko waxee rek boobu léegi lii lu lu kenn mënul rafetlu la lu kenn mënul waaw mënul kenn mënu ko interpréter nenn lu lu ñaaw la parce que récemment gis nañu moom mi nga xamante ne moom mooy dox nday def benn sortie wax ci jeunes yi ne jeunes yi dañoo war a tegu ci ci la droit chemin jeunes yi war a bàyyi li nga xamante ne moom mooy banditisme jeunes yi war a bàyyi tux dañoo war a bàyyi naan dañoo war a bàyyi salteel comme ni mu koy waxee kon tey bu fekkee gis nañu jëf ji nga xamante ne moom jëf na ko ah xamuñu nag ni bi mu koy def ànd nag sagam ou mais lu ci mënta am nekk na loo xamante ni kenn mënu ko rafetlu ni ñu leen ko waxee ñu ki sànq nga xamante ni information bi yëpp ci suba mi ngi daw ñu gis ko suñuy naataango yu bëri yoo xamante commencé nañ ko relater ñu ñëw fi nga xamante ne fi la amee mooy xar yàlla moom la dof ndey jàmpaaka bi mais balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ñu nuyu ko maman ñu lay nuyu ah, ñu lay fay man la Ndey Njaay laa tudd waaw maman tey boo ñu doon ñëwaatal ci li nga xamante ni mooy jëf ji am nan nga ñuy wax ci loolu. Ah, man ba léegi affaire yi sax daf maa yéem parce que man dama xamul affaire yi affaire yi ma ko déggee sax sama fit bi du daal depuis boobu ba léegi ma woor nii ba léegi mënuma fexe pour ma ndogu sax problème la ba léegi affaire dama koy imaginer dama ñëw keroog fekk man fekkuma fi mhm. eh, dama dama jéem dégg yuux yi ñu ne dañ kii mooy xeex dof nday ak benn rakkam léegi après ne si laa taxaw noonu nag may ne eh, après si laa gis kii Ndeye Balde noonu di ñëw mu kii xam naa affaire yi jàpp ko man xam naa tension bi moo yéeg léegi ñu ne doom ji mooy xeex ak kii léegi man ba léegi xaw ma woon ni sax sama doom bi moom si xeex bi la bokk après ne nekkata moom tam ñu ngi ko tee koñ bële ñu ne si xeex bi la bokk moom tamit léegi si lañ ko ñëwee indi affaire yooyu léegi après si lañ ne moom dafa am ñan ñoo ko ni léegi moom si xeex Maodo si xeex bi la bokk. léegi après ñun ñu tëdd ba ay 2 heures du matin si la ñëw fëgg kër gi di après muy saaga yooyu di saaga papam léegi papam mu ah, loo wax rek jërëjëf. parce que ñuy fii yow man maa la yar. parce que tamit am na loo xam ne diggante ñaari kër yi. lu ñaaw xaju fi daal. waaye comme sa xol foofu la toll rek loo wax rek jërëjëf mu saaga après ba doyal mu dem léegi mu ne nag dinaa ñëw te sa doom dinaa ko jam. ma xëyee suba si nag bu ma yeewoo noonu avant may dem marché maa ngi wax sama bu ndaw maa ngi ko xam naa Maodo su ma su jugee marché naa ko ne bu mu génn parce que kii ne woon na dina ñëw te dina ko jàmm après si laa tasee sama doom bu bu ndaw bi yoon filaaw ma jugee marché ma koy ne ana Maodo mbaa génnul mu ne ma Maodo de jam nañ ko ma ne ko si suba avant may dem marché maa ngi koy wax maam maa ngi ko naan Maodo de naa ko ne bu mu génn parce que ñëwoon na fi dem te neen dina ko jam weeboo nag mu moytu tey bu mu génn nekkate moom après man bi ma demee marché si la ñëw fekk si néeg bi après papam yee ko fekk da doon nelaw papam yee ko après si lañ ko arrangé ñun ñëpp ñu génn ñu ñuy wax arrangé wax waxtaan ak moom daal après moom mu wax ne am ne fii laa yaroo daal si kër gi comme ñaari kër yëpp benn la mu ne am ne fii laa yaroo affaire yooyu bàyyi naa affaire yi mu sedd am naa dégg naa mu génnaat ba si mbedd bi xam naa mu mënu ko muñ après si la ñëwee jël paaka bi après si la ko jamee ñaari jam-jam après ñi daal di koy ko fële sami papam ak benn xaritam yóbbu ko sami si lañ ko ñaw noonu après kii ko def kii ko mu mu doon lu ñaaw mu doon loo xamante ni nit mënu ko rafetlu doonte sax fii la yaroo jege yantoo nañu mais mënul mënul kenn mënu ko rafetlu daal mais loolu bi mu amee xanaa dafa fekkoon ñoom ñaar yomal problème bu yàgg ba mu tax mu def lii tey déedéet mosuñu am problème mosuñu am problème man sama moom sax sama doom bi miinu ko noonu sax uñu ko noonu waaye affaire lu mu mënti def si lay nekk depuis 8 marsam bi sax toog na trois jours 4 jour nanguwul liggéey mi ngi si affaire am yi ñu ngi si yóbbu jëlee ay 16 indi di defar chaque jour su ko nee dama xëy mi ngi si affaire yi di kii mm-hmm. nekk si moom si ay affaire am yëpp nekk si tamit xam naa tamit ay na foofu la xolam toll rek waaye ñii ay ay doomam lañu mm-hmm. balaa mu doon kii mënoon na xalaat bu baax parce que tamit chaque jour lu muy kii xale yi nekk si même dem na def concert mbuur ñoom ñëpp demoon jël seen oto dem mm-hmm. kon nag balaa mu doon di kii mënoon na xalaat tamit parce que ñaari kër yi tamit lu ñaaw xaju fi xam nga seen waa kër ñoom ñëpp ñëw nañ fi di baalu wala leen amul benn solo parce que àdduna amul solo waaye tamit muy muy muy xalaat daal xam ne xale yi ay doomam lañu parce que chaque ñu ngi ci ginnaawam parce que lu ñaaw xaju fi daal xaju fi lu ñaaw xaju fii parce que récemment lu yàggul dara gis nañ ko mu def benn interview di conseiller jeunes yi di conseiller xale yi naan leen yoonu yoonu banditisme amul amul amul rendement yoonu banditisme du yoon bu baax yoonu banditisme na xale yi nangu liggéey na xale yi xam ne ci yi ñu nekk ay toxa kenn naan loolu jëmul kër tey kon bu ñu gisee li nga xamante ne moom mi ngi ko doon wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi tey moom mu ñëw def jëf ji dinañu choqué dinañu dinañu jaaxal daal waaw ñu jaaxal kay wax dëgg yàlla dinañu jaaxal parce que moom tamit comme moom mu ngi conseillé yooyu xale yi tey mu ñëw di def lii tamit ñu affaire yi dinañu jaaxal torop na mm-hmm. jaaxal nañ wax dëgg yàlla jaaxal nañ waaye nag ah ñu bàyyi yëpp bàyyi yëpp yàlla yàlla baax na. waaw parce que sànq ñu ngi dégg ñu naan am na xale bu mu ko def après kii moo nekk deuxième xale bi mu nekk ñaari nit yoo xamante ne def na ko ci en tant que Dof Ndeye loolu en tant que yaay boo fekkoon da nga ciy conseillé loo koy wax. Ah, xam ne rek xale yi ay ay rakkam lañu ay doomam lañu. tamit lu mu munti tëdd demee tamit mënoon na di xalaat xalaat waroon na xalaat bu baax te xam ne tamit ñoom ñoo bokk xare yàlla. Mhm. te xare ay doomam lañu. lu mu munti tamit mer mer mer waroon na sóoraale lu lu te xam ni fii mu lu mu def nii sama doom tamit fii këram la xam nga te yëpp ñun ñëpp ay mbokk lañu tamit mu doon na xalaatam bu baax waaye tamit xëy na foofu la xolam toll waaye tamit waroon na xalaat loolu daal laa am lu ma siy wax après loolu yéen maanaam ba matuwaay ngeen jël da ko bëgg a teg ci yoon wala da ngeen bëgg a bàyyi mu sedd nu ngeen def yéen xam bi ah, papaam daf ne woon rek nañ ko bàyyi mu sedd daal papaam loolu la wax parce que comme affaire yi ay yëpp famille la daal papaam mu ne nañ bàyyi yëpp mu sedd loolu la wax papaam loolu la wax waaw bu fekkee am na leneen loo bëgg jàllale lu ñu la laajul balaa ñoo yeewi jotaay bi. loolu laa am lu ma siy kon encore une fois dañ lay masowuwaat. di ñaanal ki nga xamante ni moom la jëf ji daal yàlla na koy yàlla may wér. te lii yàlla bu mu fi amati. waaw donte mënul nekk lu kenn di rafetlu la comme ni ma ko waxee woon suñu njëlbeenu kàddu kon ñu ngi leen di masawu waat encore une fois te di leen wax ni ñu ngi leen di jaajëfal ci euh, li ngeen ñu may ñu mën a waxtaan ak yéen bu baax jërë ngeen jëf merci